mu nga raxas ñaari ndox wala ñetti ndox wala ñeent yaa xam ba mu set nga amatul benn kii mhm. set ne wicc mhm. nga jël sa ndox sotti ci kaw ëpp mhm. bàyyi ko muy wàcc ngay naan nga xool bu fekkee ki soj la na def loolu ñu xool incha allah dina am résultat à cent pour cent waaye bu fekkee yaa ngi koy baxal nag ñu bëri boo di see ñu naan mënuñu ci am résultat dañ koy baxal donc loolu moo gën ça c'est vrai ah, léegi bu fekkente ni parce que tamit plante la bi dafa bëri dafa dafa bëri secret dafa bëri lu ci nekk ci wàllu wér gu ba ci wàllu baatin yi mystique bëri na ci mais ci wàllu faj bi la ñuy gën a wax bëri na ci tey bu nit ki bu amee dagg muy góom bu bees walla mu am lakk-lakk su fekkee am na ngeer bu tooy mhm. xob yu tooy yi maanaam mhm. mu dëbb ko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 mu nekk lu urgent exemple. Mhm. wala amuñu dispensaire. Mhm. donc bu bu dee lakk-lakk la mun na muy góom bu bees. bu bees bu amee ngeer gu tooy bi. tucc mhm. tuccal ko def ko dina ko saafara. bu fekkente ni ki nga xamante ni tamit dafa amee asma. dafay amee asma. moom it bu amee ngeer boobu baax na ci moom. xooj ko di ko naan. wala mu boole ko tuuti xottu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 mbal baax na waaw bu ñu amee xottu kii garabu mbal baax na mm-hmm. su fekkee amuñu mbal bu ñu amee màdd mm-hmm. eh, baax na xobu màdd waaw su am nañ ko bu ñu xobu màdd ñu xottu màdd xottu màdd buñu lekk ba war koo sànni boobu tamit baax na mm-hmm. eh, keroog rek am na ko ma woo Pape di ma wax ni màdd bi moo faj sëqatam abarki démb la envoyé naa la vocal ah, waaw waaw dégloon naa témoignage waaw ah, kay ma dafa amoon sëqat mais bi ko jëlee rek bàyyi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 bu ñu amee ba lu toll ni sëqu ngeer mhm. baxal ko di ko naan mooy yàlla mën na leen ci saafara ba nga xamante ni mhm. loolu dina dañ ñi nga xamante ni tamit dañuy amee biir buy metti biir buy metti mooy maux de ventre buñ ko amee ngeer moom tamit def ko infusion wala ñu baxal ko di ko naan yàlla mën na leen ci saafara mhm. ñi nga xam ne dañu amee impuissance sexuelle waaw ñu amee impuissance sexuelle moom mën na waxtaane sax su fekkee mën nañu am reen bi reenu ngeer suñ ko jëlee tamit yàlla mën na leen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 macha allah loolu am na solo. Mm-hmm. léegi euh, benn instant yaa ngi wax ci comme ñi nga xam ne dañoo am ay asma ak yooyu. Mm-hmm. léegi comme xob yi la doo quantité xob bi ñuy war a ci ngeer bi waaw na à peu près ndax mën nga ko xayma. waaw bu fekkee te baax na. ngëb ngëb ngëbu loxo. ngëbu loxo benn poignée rek. d'accord mais nag bu nekk poignée yoo xam ne da nga bu ngëbu kii yooyu. waaw benn nag ngëbu ay taay si nag ay. ay ngëb yi am moom ngay jël. Euh, baxal ko bu fekkee asma la nga wutaale ñeenti xob ba ñetti xobu xottu biteel mhm. boole ko ci biir mhm. ndax comme set baxal ko mu la neex mën ko baxal wala nga infusé ko noonu mhm. euh, di ko di ko naan beneen bu dee soj nag moom nga xooj soj xooj bi mu xooj waaw xooj bi même mën na nekk même quantité waaw mën na nekk même quantité ndox bi après litre ndox la waaw litre ndox rek mën ko xoj parce que xam nga xam nga moom nekkul garab bu toxique aussi amul benn danger ci kii bi ñu di ko di ko di ko di ko naan macha kon loolu leer professeur ñu bàyyi la tagoto tàggatoo ba vidéo bi di ñëw incha allah. waaw ngi nuy ñëpp rek di len wax ni toujours comme ni ñu waxee rek papa li ñi jégué euh duñ ko dul xam wala ko dul gëm wala lañ ko dul xam wala lañ ñuy sàggan li mag ñi di wax rek bu for yombé mhm. seug jafé deug la loolu mais ngeer bari na lo xam ni ñu ngi koy jënd ci pharmacie bi ta ngeer man nako man la sax lu upp lolu ta ngeer mom bo demé ci àll kayor bi yëpp mi ngi bari xass te xass Ah, donc bu ko defee nag eh, ñuy delluwaat cosaan mhm. ndànk-ndànk da ci da ci baax daal alhamdulilah ma benn waay bu mos ne benn bindkat tubaab mhm. mu ne li doomu aadama di wër ba tax mu jël ay fusée di dem ci jaww ji mhm. mu jaral ko muy jël ay sous di dem ci taatu géej gi mu ne yàlla ci moom la ko denc mu koy wër taxawul ko yàlla <laughs> mooy nga la jege waaw <laughs> la jege rek eh, doo nga xam kon professeur ñu ngi lay remercier di jox ko ñuy suivre rendez-vous ba vidéo bi ñëw incha allah nga xam ne ci huile essentielle. Mhm. Euh, boo xamante ni dañuy wax ay njariñam lan lay jëriñ ci wàllum mbir mi. incha allah bu dee